laysa bi aalimin walaw afna alfunoon inna allati lam yaxsha rabba alaalamin laysa bi aalimin walaw afna alfunoon falxilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuurun maha diraaya mu jël ci leeri xam-xami diraaya looloo waral du juum ci jenn aaya taxallamul xilma li wajhi llaahi lii moo taxoon léppam di jëm ci leehi wa man xawaa xilman walaysa yamalu la bamba wax mu mel ni nag ku sébbulu fa laysa kullul xilmi nafxan suxtiwaa lii moo taxoon du wax farante naata waa walaysa kullul xulamaa fistiwaa moom bokkul ak xaalim yi dul wattu hawaa fa fil xuloomi maa yuqassir qalbaa moom bam jógee la jox loxoom seex bamba wayoo jibul kibra wayoo littal baa